tim tim sama Adja Traiteur ñu ngi ñëwaat ak yeen ci recette bu neex neex en moins de 10 minutes ñu koy brownie au chocolat pour réaliser recette bi on aura besoin de 6 ingrédients Lait en poudre cacao en poudre huile chocolat de votre choix sucre en poudre et farine ingrédients et dosage 3 cuillères à soupe farine Manam 2 cuillères à soupe de sucre manam ñaari kuddu yu mag 2 cuillères à soupe cacao manam ñaari yu poudre cacao 2 cuillères à soupe de lait manam ñaari kuddu yu mag pendoxu cuillère à soupe d'huile manam bu huile 100 g de Nutella manam 100 de chocolat bo munti am ñun Nutella lañ utiliser pour réaliser suñu recette bi comme ni ngeen ko les ingrédients ingrédient moo nekk pour farine à cuillère lait en poudre de cuillères cacao en poudre de cuillères sucre en poudre de cuillères chocolat Nutella 100 g huile une cuillère à soupe donc nous ñu ngi sotti suñu mélange farine lañ njëkk def ci cacao bi daal di jël sucre bi sotti daal le jël meew bi dadi mélange bi mélanger ingrédients plutôt manan mélange sax jaxase ko ba mu hmm bi mélange bi dañuy gas ci pour mëna ñëw sotti ci suñu huile la def ñu huile mhm. bi nañ chocolat dadi bo jëlee taasu ataay xaju tasu ataay bi ngay jël ci ndox sotti ko ci daal di yëngal mélange bi yëngal mhm, yëngal donc normalement so paré yëngal texture bi nga wara mëna am ni le pat bi wara mel nga daal di jël sotti duggal ci sa micro-ondes recette bi na micro-ondes mo koy défar nga daal di jël 5 minutes rek dina doy pour mu ñor donc fii yéen a ngi koy gis suñu bool mi ngi tourné recette bi mi ngi euh, ñox xet bi nag moom jar na quatorze milliards donc bi ñu paree dañ ko génne teg jël fourchette pour mun a jam gis ngeen ne ñor na ñu jamaat gis ngeen ne aussi ñor na de ce fait bu dee yow kese nag moom jëlee sukkudu rek uuf boo amee sa glace ci wet bi teg bu dee sama genre gii nga xamante ni moom monsieur loo def da koy partagé ak moom nga daal di koy servir sa assiette fii dañu jël poudre cacao bi rek xaw koo wis ci kawam tuuti pour suñu plat bañ a lawet donc bon appétit à tout le monde tey moom euh, ingrédients yi lay utiliser dosage moo nekkaat ni ñu ngi yàkkal euh, sama ñaari caat yi Awa Dieng ak malik Thiam ñoom ñaar laa yàkkal bi pa di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen euh, chaîne Adja sama Adja Traiteur jaa ngeen jëf